asalaamaaleykum mbokki internet yi asalaamaaleykum mbokki Sénégal tey nag euh, sunu TV dafa def déplacement daal di ñëw fii ci Koungheul gare ñëw ci bitik Ali Biteye sopp na bi tey nag euh, lépp loo xamante ne xeetu baax baax la rek ak lépp loo xam ne day dem ci kër rek Ali da koy daal di jaay fii ci bitigam bitig bi nag mu ngi taxaloog gendarmerie nationale bu Koungheul Gare tey nag dañuy daal di doxantu ànd ak ma ànd ak sama caméraman ñu doxantu ci biir xool xeetu baax baax yi nga xamante ne moom la Ali di jaay di ko dalee ci matelas lal coiffeuse frigo télé lépp loo xamante ne rek doomu aadama dana ko soxla ci biir këram rek Ali Biteye da koy jaay kon sama caméraman topp ma ci biir waxe woon rek euh, mbokk yi Aly Biteye ngi nii dama koy daal di nuyu jox ko wàcc waay Aly na nga def maa ngi nuyu bu baax a baax lépp loo xam ne xeetu baax baax la rek nee naa leen fii lañ koy fekk ci bitigu sopp na bi ki yor bitig bi nag euh, tudd Aly Biteye nekk fii ci Koungheul gaar jàkkaarloog li nga xamante ne mooy marché central bi waaye dendoog gendarmerie national bu Koungheul gaar yéen waa Kaffrine yéen waa Koupantoum yéen waa région de Tambacounda ba Kaolack lépp loo xam ne soxla ngeen ko ci xeetu matelas lu ko dalee ci matelas télé frigo ventilo lépp loo xamante ne accessoire la jigéen da koy daal di soxla wala borom kër war ko mën a soxla ci biir këram yéen ñi nga xam ne yéen chauffeur yi te faral di jaar nii di jógee Bamako soxla mer gàddu bu meree rek ngeen daal di ciy ñoddi benn rek tëdd rek sa yaram daal di noddanti ko li ñuy ko nalee ci dodoo xoolal ma dodoo yi xoolal ma rek li ci dodoo nga xoolal ma rek li ci xeetu tàppi li ci xeetu mat la li ci xeetu li nga xam ne mooy sajaada yi nga xam ne moom la ñuy jullee nga xam ne danga nga ciy daal julli mu neex lool nag nooy nepp ba jidda lépp fii la am nee naa leen ci bitiku sopp na bi waaye ki nga xamante ne moom moom bitik bi euh, tudd Ali Biteye dama koy daal di tàllal sama micro mu wax mu mais Ali Biteye yow yow yow yow loolu yow foo jëmee waa Koungheul yow xeetu baax-baax yi nga xam ne moom nga yor fii yéen a yéen laay waxal mbokk internet yi dama koy jox micro bi mu wax li nga xam ne mooy xeetu baax-baax waaye nettali ci làmmiñu borom Ali Biteye micro baa ngi waaw euh, mbokk internet maa ngi nuyu ñëpp di leen ñaanal jàmm di leen wax ne comme ni mu ko waxee rek boutique bi moom mooy boutique sopp na bi gérant bi di maam Ali Biteye ñu gën koy xam si Ali yi si loo si bëgg lu loo xam ne lu jëm si wàllum néeg la rek am na matelas am na matelas doodoo doole am na doodoo classique am na confort plus am na confort classique am na am na euh, matelas select am na matelas orthopédique am na matelas rasol am na façon matelas boo bëgg rek am na si boutique bii nii soo ñëwee di nga ko am incha allah si prix bu xéwale nag li gars yi di jaayee Dakar moom la ñuy jaayee fii si Koungheul amul différence si boutique si boutique sopp na bi boo fi ñëwee bi ñu la koy jaayee am na njëgënaay simple am na tapis chaise lal coiffeuse armoire lépp mu ngi si biir loo soxla rek am na ba nga xool kaas yu baax yi ñuy naanee kafe di def ay sa meew kafe suukar lépp am na fi njëgënaay yu baax yi yëpp am na fi ventilo yaa ngi si biir fii daal loo soxla si lu jëm si chambre rek lu jëm si kër loo soxla rek soo ñëwee fii di nga am. kon yéen a ko déggandoo lépp loo xam ne soxla nga ko rek mu jëm ci kër lépp am na fii nee naa leen sopp na bi jàkkaarloog marché central waaye dend ak gendarmerie nationale bu Koungheul gaar kon dama koy daal di wax euh, moom tamit mais mais mais matlaay mais mais mais mais mais matlaay xalaatoo ne man war naa cee mën a yëg xaw cee mën a mën mën a mën a mën a mën a tëdd nii xam nga rek bokk ci nii ah comme lu ci mel ni xoolal ma lii xoolal xoolal ma lii ci njegenaay jëlal lii ci njegenaay jël génne ma njëgënaay yi ma xool génne ma li xoolal ma li xoolal ma li ci xeetu loo no ma li ci xeetu nooy nooy xoolal ma li ci xeetu nooy nooy jëlal li jëlal li ci xeetu nooy nooy jëlal li jëlal lii rek ci xeetu nooy nooy yéen mbokk internet yi yéen laay waxal ngeen daal di daw si fii ci bitiku sopp na bi nekk ci euh, jàkkaarloog marché central waaye dendoog gendarmerie nationale bu Koungheul gaax lépp fii la am te lépp yi tamit fii lay xewee waaye nag bala dañ koy daal di delloo rek micro bi mu wax askan bi daal di joxe numéro téléphone bi pour bu ngeen soxlaa ngeen gaaw ci ni ma gën a gaawee bala muy jeex ndax prix normal lay jaay te prix en gros lay jaay yéen Sénégal yéen lay waxal mbokki diaspora bi yéen lay waxal mbokki Afrique yéen lay waxal sàkkan maa yéen waa Koungheul waa Kaffrine waa Kaolack ba Koumpentoum Tambacounda région de Kaffrine région de Tamba région bu waa Kaolack yéen laay waxal Ali bi tey mii kat nga ne la ci réew mi de Ali looy jox waa Sénégal. kanaa di leen dox dal leen jàmm rek di leen jox numéro téléphone yi. di leen jox non lii moom soo sooy dem dama la koy jox nga yóbbuwaale lii pour yow la lii moom. yóbbu mun nga ko yóbbuwaale. waaw di leen jox numéro téléphone yi rek boo soxla soo wootee si numéro bi 77 901 36 55 77 901 36 55 bu nekkee Expresso bi 70 563 35 79 numéro yooyu boo si ootee rek di nga jot àllibité loo soxla rek ak foo mënta nekk boo ko soxla boo ko woowee dina la ko ñëw livrer si gratuite incha allah. kon àllibité yéen da ngeen di def livraison à domicile te doo fay dara eh ma ne loolu neex na kat. ni mu gën a gaawee ngeen daal di daw si ñëw ci bitik sopp na bi fekk fi àllibité mu ba àllibité da nga baax nag dafa baax dafa baax xam nga lu ma gën a neex xam nga lu ma gën a neex ci yow dal gi maanaam dalal gi boo ñëwee di jënd dinañ la dalal jox la lu sedd nga naan daal lay dalal ci jàmm nga jënd li ngay jënd ñu jàppale la nga génnee ko Sénégal jëm kanam kon mbokki Sénégal mbokki internet yi yéen waa Afrique rawatina nag Koungheul ak li wër Koungheul ñëw leen fii ci bitiku sopp nabi xéewal gi fi la ne de rombate yéexate ñàkk rombate rëccu lu leer laa leen di wax man nag maa nga ca yoon del naa samay bagage maa ngay dem ay ñu dem